malaaka yi la ci laaj ci bàmmeel nag Sëñ Tuubaa nee na seeni bët bu buñ la xoolee day mel ni melax gu fëkk buy buy buy buy taw melax ya ngay gis nee seen bët yi noonu lay mel seeni kàddu day mel ni dënn gu rëcc ak dënn dënn yi dënn ci ci buy taw naw bi nawet bi xam ne nga xam ne lu lu lu xumb te bari rii lay doon ne seen kàddu noonu mel seeni bëñ seeni seel dafay mel ni béjjëni nag seeni bakkan day lang bay bay bay bay bay bay mel luy laal suuf seen seen yor kawar yu gudd yan dañ koy diri ci suuf si neen diggante mbaggum kenn ku ne ak morom ja maanaam diggante mbaggu ndajoor ak mbaggum càmmoñ mi doxum naa nga mi weer la kon kon tuuti wuñu ñu rocc ci ñoom nag yërmande ak ñeewant lu dul ci way gëm yi rek kenn ku ñu di munkar kajas nakir mooy ku kenn ku xamut kenn ak ku kenn xamut fàttaliwaat te soññewaat ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jege naam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dil xablil wa man iqtafa atharahum ila yawmi bokk julli de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu sante sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di laan siyaar di ndokkeel ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi nekk Sëriñ Tuubaa sun boom yokkoo fana ko wér mu àggale mboolem ay naalam ak yéenam yëpp di ko ñaanal njaboot Sëñ Tuubaa yëpp waaye di ko ñaanal suñu bopp nu taalibe Sëñ Tuubaa li ñu bëgg a waxtaane lu am solo la muy ma baadal mawt di santit wilaaya ci seen taxawaay ci di fàttali ko ña jiitu ngir di leen ñaanal lu am solo la yéen bi sallallahu dafa waxoon aji faatu ci bàmmeelam dafa mel ni ki ci am ndox di xaar ku ko ñëw làbbanti ku ko dimbal làbbanti ko ka ca ma ngay xaar ñaan gu bàyyi ko ci baayam wala ci mbokkam walla ci xaritam ngir mën ko xeetli nee na ku ko daba ku ko dabaku ñaan nag ca ca ca foofee yaa koy gënal àdduna ak li ci biiram ñaan googu itam moo mooy li ko gënal ci àdduna ak li biiram kon la ñuy addiyaale ñi ñi ñi ñi ñii dund lañuy ñuy àddiyaal ñafaatu mooy di leen ñaanal ak di leen jéggalul yàlla xadis boobu bay xaq moo ko génne jëleen ci xaaris ibnu Nu'man mu ne dafa mas a dem ci ay armel doon ko siyaare waaye lu ma ñetti yoon yoo xam ne day nelaw bu nelawee gént am koo xam ne góor goo xam dañ koy mbugal mbugal metti ci bàmmeelam ci benn benn bis bu dem siyaara ji armeel ya seen ca barab boobee barab ki ñuy bugal mu seen fa ñetti xale yu jigéen ñuy siyaare barab ba xaaris xam ne kon ñii ay doomam lañ mu xibaar leen nag la mu gént bañ demee ñoom xale yu jigéen yooyu guddi ko nelaw ñu fanaanee jàng alxuraan ak jégglu seen baay di ko ñaanal di ko jégglu yàlla ci lañ ci lañ jeexal guddi gi ak def tawassul ci seen borom subhanahu wa taala di toroxlu ci kanamam beneen yoon beneen yoon nag xaaris nelawaat gént gis waa joojee mun eh, situation soppi ko lool mu sol ay dàlli wurus ànd ak ay xóoru yin ak ak ak xale yu koy liggéeyal nekk daal ci dund gu neex a neex a neex bi xaaris yawoo nag eh, daa dem bégal nag doomu jigéen yooyu yéen leen seen ba seen bàyyi ka léegi soppi ko nag suñ jugee na ci mbugal ma léegi mi ngi ci xéewal kon la muy tegtale kon mooy ñaan gi ñuy ñaanal kon euh, ku fi bàyyi ko lu lu am solo la nit nag bu faatoo xam nga dunduk nit ñetti étape la àdduna barsaq ak uxra muy àlaxira àdduna étape bu njëkk bi mooy fi fi la ñuy jëfee waaye soo faatu na ndax fi ne aljanna ubbeeguti buntam sawara ubbeeguti buntam kenn demagul aljanna kenn demagul sawara ñi faatu ñëpp ña nga barsàq fa la ñuy ndégantee ba ñëpp faatu ñu doon nag taxawal bi su mujj ba suñu àttee ci la ci la kenn ku nekk doo dem na këram euh, kër ga mu yàlloo barsàq boobu nag ki taxe su moom dafay defal xéewal ba mel ni mi ngi aljanna te fekk demagul aljanna ki texee di dañ ko fi mbugal ba mel ni mi ngi sawara te fekk demagul sawara waaye na kon kenn ku nekk lay doon dundug ëllëgam mu ngi tàmbalee ci barsaq muy ci kër muy état bu ñaareel bi nga xam ne ci lay jaar fa ñuy xaarante moo tax Sëñ Tuubaa daa waxoon ne barsaq de ñaar rekk a faam mawwu ak fuuyu nee na ki nga xam ne amu fa dara mooy dafa dem te yóbbaaliwu dara day xala maw ba bis penc maw nag mooy ni mbëtt di def noor xam nga mbëttum noor du du lekk ndax mbëtt ci ay xasaraat lay dund ay gunóor ak ay soccet ak yu mel noonu te loolu du am noor nawet lay am moo tax noor bi yëpp day day nooroo xiif ci am lëm lay dugg rek ànday mujj wow koŋ daanaka ay ay yaxi kese lay doon ban nawet nag ba yooyu amul génn doo tàmbalee tàmbalee lekk nam def ci ca lëmm nag ca noor ba nga xam du lekk loolu mooy mawu nee na ki fa yóbbaaliwul dara day xala mawu ba bis penc fooy it mooy ki nga xam dafa dafa am dafa am dara ka fa yóbbaal dara moom du ca may kenn ndax xam kañ la saa di taxu kon day fooy ak lam yor ba bis ba bis penc rek kon ka fa yóbbaali ka fa yóbbaaliwul dara mawu ba bis penc ka fa am dara fooy ba bis penc ndax ma du ca may kenn ndax mu kañ la saa di taxaw te kenn kon la nga am ca ngay dund moo tax kon lu mat a bàyyi xel la Sëñ ne di nettali e, ci bàmmeel la fay xew nee na da da koy indi dafa nettali xadis boo xam ne Abdullah ibn moo ko solo yéen saa sama wax ne def na yaatalal e, kii door dugg bàmmeelam tey ku texe def na ko yaata bàmmeelam ba mu toll ni ni mu soree waa këram loolu kon lu yaatu lay doon neen ca loolu la imaamul Xurtubi eh, di wax ci loo xam ne Kaabul Ahbaar moo ko nettali mu ne saa buñ tëralee jaam bu baax jaam bu baax la wax al abdu saalix saa buñ ko tëralee ci bàmmeelam ay jëfam yu baax ñooy ñëw di ko wettali su ko dee malaaka yi yi suñ dikkee bëgg a jaar ci ay tànkam julli gam daa julli ni ko déedéet fii de amoo fi yoon jëmal ne suñ bëggee jaar ci bopp bi koor gam daa woor ni ko déedéet fii amoo fi yoon kii kii ki nga xam ne daa mar mar wu yàgg ca kër ca ngir jëm yàlla képp kon fii amoo fi yoon ñu bëgg a jaar ci digg yaram yi xaaj gam daa aj ak jihaad ne leen déedéet fii amu leen fi yoon ki nim sonale boppam sonal aw yaramam xaaj na jihaad na ngir jëm yàlla kon amu leen fi aw yoon suñ bëggee jaar ci loxo yi sarax yam daa saraxe ne leen dee de sori leen sama waaji de kii ñaata sarax moo génn ci loxoom yi ba mu taxaw nii tey ci kanam yàlla subhanahu wa te lépp sàkku jëm moom rek rek la kon fii amu leen fi yoon malaaka yi daal taxaw ne nii an tibta hayyan wa mayita ne ko ñu ngi leen ndokkale yoo jàmm yow de sag sa dundu tey na sa faatu tey na waaye lan ci waroon xam-xam dañoo wax nag kii am lii mooy ki selloon jëfam ngir yàlla mooy ba mu koy jëf jëf ko ngeen gisal wala ngir gis leen moom mbaa mbaa mbaa leen waaye da ko def ngir jëmmi yàlla kooke lañ wax ne nga xam ne te sellal jë jëfam yàlla rek tax mu dëggal yàlla ci waxam ak jëfam rafetal yéeneem ci bitteem ak biiram kooku mooy ki nga xam ne ay ay jëfam ëllëg ñooy taxaw di ko layal di ko défendre. Euh, moom la sunu borom di di di mooy firi ay fali anfusihim yamhadoon ji sunu borom doon wax bu dee yéefar nag ci bàmmeelam day sax ci mbugal solo nañ jëli ci yonent saa salaam ba tey Sëñ Tuubaa moo nettali mu ne ab yéefar suñ ko tëralee ci bàmmeelam dañ ko daal dañu daal di xeetal ci kawam juróom-ñeent fukki ñàngoor ak juróom-ñeent te seen wati soxna taniinan mooy mooy quatre-vingt-dix-neuf ñàngoor yoo xam ne ñàngoor lu ci nekk day am juróom-ñeenti bopp bopp bu nekk di mat di ëf dangar ji ci yaramu nit ki yaram bi di di di di nëb di xel di dët noonu la dëkkee moom ba keroog saa di taxaw buñ koy dekkal ngir mu war dem ci taxawaay ba day silmaxa soo leen jël ci Abdulaahi Noomar mu wax ne eh, bis dañuy dox ci biir ci xuru eh, Badar xuru Badar mooy fañ xur yu ñu xare woon Badar ay teen la ñuy dox dox ci digganteen teen yi ba yàgg am góor gu ne tëll génn ci biir suuf si ak ceen a ngi ci baat bi am ku gàtt ku ñuul ku ku jàpp ci catul catul ceen gi mu ngi mu ne yaa Abdullahi isqini Abdullahi Noomar mu ne ko may dimbale may ma ndox ma naan walla daa daa wax ne man xawma lu ko xamal sama tur wala bokk Abdullahi da ci jub li ñuy wooyee nit ne ko jaamu yàlla bi rek koo xamut neen xamut ba xam daa xam awturam wala da ci jub lu Abdullahi yow jaamu yàlla bi rek bi ma ne may ma ndox nee kenn ñi ma ànd ma déedéet bu ko may ndox di ko ab yéefar la fa mu ko waxee rek ka yor catu caan nga daal xëccaat duggaat ak ci biir suuf si bi ñëwee netti ko yentu ne ko addu wallahi abu jahlin ibnu hisham wa huwa atabuhu ila yawmil qiyamati ne yàlla ba abu loolu mooy doon buggalam ba keroog saa di taxaw bàmmeel nag xéewal dana fa am waaye ka am xéewal xéewal ga day sax ba faw dootu dog ila abadil abidin bu dee kañ fay mbugal nag ñaari xaaj la benn muy koo xam ne mbugalam day sax ba faw loolu mooy ab yéefar wala ñi nga xam ne dañoo jéggi dayu ci mooy lu mel ni ngoor jigéen euh, wala ki nga xam ne da doon def ay fitus di ci lor ay nit mbaa ya demee noonu ma xam yi nga xam daal dafa jéggi dayu ci mooy ñooñu dayu seen mbugal day sax ba faaw dootu tam fu mu yem am na ñoo xam ne seen seen mbugal du jeex maanaam seen mbugal du du du du sax day am fu mu yem loolu mooy ñeen ñi nga xam ne moy na yàlla waaye seen mooy nag àggul fenn fi maanaam seen i tooñ woyof na dogu mbugal nag ci ñaari anam lay ame mën naa doon ci sabab mën naa bañ a doon itam ci sabab bu dee sabab mi ngi sabab boo ci sarax bu la nit sarxeel yéene la yol ba su moom sukkandiku ca loolu jéggal la mbugal ma dog wala ñaan gu la sa mbokkum jullit ñaanal su moom nangu ñaan ga teggil la mbugal ma mën naa bañ a doon ci sabu nga xam ne suñu bon ci ci yërmande mooy jekk-jekk ci coobareem jéggal la kon ki am xéewal day sax ba faw ki am mbugal nag ñee seen mbugal day sax ba faw ñee seen mbugal du sax ba faw kon lu xàmmee ko da ci am solo lan lañuy ñuy mbugal ci nit ki mooy ruuxu gi ak yaram bi yaram bi donte nekkul ci bàmmeel ci misaal ndégment da ko lekk morees teewut yaram ba di yëg mbugal ma donte bàmmeel la seey na ba ba kay gisatu lu ca bokkit la la yaram ba doon bu dee bu dee sunguf la bu dee suuf la day day day day day kon day yëg mbugal ma ko ma ko sun doon di mbugal kanu mënta ñàkkoon ki faatu am ay xaaj wala benn xaaj ci dund ci yaramu loo xam ne buy dund lay doon dund goo xam ne sun boo ma ko xam ci dund googu ci lay mën a yëge mettiitu mbugal mi ca ko mbugal ak bànneexu xéewal gi ca ka ñuy xéewale nga xam ne dañuy mbugal yaram bi di mbugal ruuxo gi donte nag yow mi tiim jëmm ji man nga gis xëy na doo gis muy yëngatu wala muy raf doo gis seen jeexite menn mbugal ci kawam waaye du tee rek la muy yëg ma ngi ko yëg donte mi nekk men da ko lekk wala mu lap sey ci géej gi mbaa mbaa mbaa lu ci mën a rek bu dee nag eh, lu aju ci wàllu génn gu roox ak melaw laaj yi ñu koy laaj ci bàmmeel Sëñ Tuubaa nee na yi mi ngi ko indi ci miftaaxul xuyub xuyub mooy téere bi ñu tuddee miftaaxul xuyub nga xam ne da ko eh, fii jawaab bi xilli naa Omar Diop nga xam ne mu leen ton Sëñ Omar Diop Mbàkke laajum ko laajoon mu ne ab jaam bu fekkee day dafay aji gëm su demee bay bàyyi ko adduna dëgmal àllaaxira ay malaaka dañu wàcc bàyyi ko asamaan su dee su dee jàmm baax ab julit neen malaaka yu bari yoo xam ne weex tàll seen xar day weex tàll ba mel ni jant bi yor ay mbàjj yu bàyyi ko aljanna ak ay gëtt yu bàyyi ko aljanna suñ demee ba séen ko lu toll ci ab séen rek maanaam ba nga xam ne ñu ngi ko séen rek malaaka yi foofu la ñuy daal di àgg suuf ñoom jekki malakul mawt mooy avancé ba agsi ci moom day wax na ayyatuha nafsu uxruji ila magfirati min allahi wa ridwanin yow ruuxu gu teey gu sell gi génnal jëm ci sa njëggalug boroom ak ngërëmam même bu tàlleel loxoom nee na gi de sotti ko ci loxoom mel ni robinet boo ubbi na muy xellee noonu day xellee ci loxoom neen bu ruux génnee nag balaa xef ak xippi malaaka yi nangu ko ci moom bàyyi koy lëmas ca mbàjj yooyu ñu jëloon aljanna ak gëtt yi bàyyi ko aljanna nga xam ne xetu xetu xetu maanaam xetu tiib xetu laaj ko goo xam ne maanaam gu ne neexee mus sa wàcc àdduna ñu daal di yéeg ak ruuxu ga nee na amul benn kuréel malaaka bi ñu romb lu may dañ wax ne maa haa maa haada ruuxu tayiba ana roogu tey gi gu doon ñu ne leen diw doom doomi diw nga xam ne ci turuwam gën gënoon a bëgg ci lañ koy woy euh, bañ àgg si asamaan su àdduna si ñu daldi ubbilu ñu ubbi leen malaaka ya fa nekk gunge rooga ba ca asamaan si ñaareel ñu ubbilu malaaka yi yi dëpp bu ñu ubbee na malaaka yi ñu ne ci ñaari asamaan gunge ko ba ca asamaan sa ci topp noonu lañ ko topp ba ci asamaan juróom-ñaareel maanaam asamaan suñu àggee ña fa nekk malaka yi nag gunge roogi ba ci asamaan sa ci topp su moo daal di wax ne iktuba kitaaba abdi fii illiyin na ngeen yóbbu ruuxuk sama jàmm bi ca illiyin man ah, na ngeen na ngeen na ngeen bind na bind ab ca illiyin illiyin mooy fa nga xam ne fa la ruux yi ñu taxe ñu nekk mu dee ñu taxee di sijjiin fu ñu wax sijjiin de seen ruux di nekk te ngeen delloo ko ci suuf nag moom ruux di ndax ci suuf laa ko bindoon ci suuf laa ko delloo ci suuf laa koy génnewaat bu ëllëgee itam mooy buñ ko deccal ñu daal del bu ñu dellu si rooxo gi ci yaram wi malaaka yi laaj ca bàmmeel daal daal jaas nag kii ne sëq ci mbagum ndeyjoor kii ne sëq ci mbagum càmmoñ ñu ko mu toog ñu ne ko man rabbuka kuy sa borom ma ne sama borom mooy yàlla subhanahu wa taala ñu ne ko luy sa diine mu ne sama diina mooy lislaam ñu ko ana kan la yónni woon ci yéen mu ne rasulullahi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lu doonoon say jëf mu ne jàng na téeru yàlla ba gëm ko dëggal ko mais fa waxe lool nee na ab ak kat daa di war ci kaw asamaan an sadaxa abdi fafrishu lahu fil janna wa albisuhu minal janna waftahu lahu babun minal janna fa yatihi min rawxiha wa taybiha kàddu daal waaj bàyyi ko ci kaw ne sama jaam bi wax na dëgg lalal leen ko ci aljanna te ngeen seet sol ko yére yu bàyyi ko aljanna te ubbil ko ubbil ko bunt bu bàyyi ko aljanna kilima aljanna ak neex wi di ko fekk ci bàmmeelam ak xeetu ko aljanna ñu daal ko yaatalal bàmmeelam lu tal ni ab gis maanaam ba tàlli sa bët la muy seen fa mu àgg lu toll noonu la ñu yaatal bàmmeel bi nee na benn waay bu rafet lool xar kanam dikkal ko ku sol yër yu yor xet gu neex ne ko ab abshir billati yasurruka haada yowmuka allati kunta tuadu ne ko bégal bégal ci li lay bégal ndax bis bii mooy bañ la doon dig ca ba nga ndekkee adduna nee na malaaka yi ñooy wax loolu bu ko dee mu ne ko yow yaay kan sax yow de sa kanam gi moom aw yiw rek laa ci gis mu ne ko maye sa jëf ju baax ja nga doon jëf ci àdduna ab yéefar nag mooy safaanub loolu ñu wax ci jullit yëpp rek bu dee yéefar safaan ba la malaaka yi laaj ci laaj ci bàmmeel nag Sëñ Tuubaa nee na ñëw na ci xadis boo xam ne dafa day day wax ne seeni bët buñ la xoolee day mel ni melax gu fëkk buy buy buy buy taw melax ya ngay gis nee seen bët yi noonu lay mel seeni kàddu day mel ni dënn gu rëcc ak dënn dënn yi dënn ci ci buy taw naw bi nawet bi nga xam ne nga xam ne lu lu lu xumb te bari rii lay doon ne seen kàddu noonu la mel seeni bëñ seeni seel dafay mel ni béjjéni nag seeni bakkan day lang bay bay bay bay bay bay mel luy laal suuf seen seen yor yor kawar yu gudd yaan dañ koy diri ci suuf si neen diggante mbaggum kenn ku ne ak morom ja maanaam diggante mbaggum ndajoor ak mbaggum càmmoñ mi ndoxum doxum mi weer la kon kon tuuti wuñu ñu rocc ci ñoom nag yér yërmande ak ñeewant lu dul ci way gëm yi rek kenn ku ñu di tudd munkar kajas nakir mooy ku kenn ku xamut kenn ak ku kenn xamut noonu lañu tudd nga xam te ñoom Sëñ Tuubaa waxoon na ca euh, ca te suuf su bànne lépp leen ragal ba ci malaaka yi sax dañ leen a ragal lu yàlla bind daa ragal ñaari malaaka yi ba ci malaaka yi sax tey niroowuñ ak dara nag niroowuñ niroowuñ doomu aadama niroowuñ malaayka niroowuñ niroowuñ njanaaw niroowuñ jinne niroowuñ bàyyi ma wuñ dara daal seen seen bindu bopp la boo xam ne bind bu yéemi de yàlla def leen ngir ñu nekk ak waar ci aji gëm tey tey tey tey xotti xotti suture ci am nafiq wute nañ nag ci ndax melokaan wenn wi lañuy ñuy ñëwee ci ci ci ci ci ci yéefar ak jullit wala wala wala déet am ñoo am na yoo xam ne bu ñu ñëw ci yeefal lañu ñàng yor ñàng yor mer wu ñàng su dee ab jullit du du du am na ñu nag benn melokaan bi ci la ñuy moom la ñuy ci ñëpp xam ne gis leen képp moo gën li dee di métti métti gis leen moo gën a métti juróom-ñaar yoon gis leen nag dafa doy mbugal maanaam xool jëm jëm yi doy na na sëkk mbugal waaye am na ñoo xam ne deesul deesul laaj ci bàmmeel am na ñuy laaj am na ñu laaj ñu laaj Sëñ leeral na ko. ba tey ci ci tere boobu mu ne na nga xam ne am na ñuy seette ci ñi faatu kuréel boo xam ne desu leen laaj euh, mu ne bokk na ci ashuhadaaw ñi nga xam dañoo sahid ci yoon dañ doon xare yoon yàlla ba faatu ca ak siddiquuna yi ñi nga xam ne dañoo doon nit ñu dëggu ñoo xam ne liñ daa jëf dëgg lay doon liñ daa wax dëgg lay doon musu musuñoo caaxaan musuñoo fen musuñoo wax lu dëgg ci dëgg lañu sax ci ci biir ak biti ak xale yi nga xam ne jotaguñ gént ci lay gën a lëng ci ñaari wax yi am na ñu ne daañ leen laaj am na ñu ne duñ leen wax waaye ji gën a lëng mooy duñ leen laaj waaye nee na jumhur ahli na ñëpp daje nañ ci ne ci ñàkk leen a laaj ñàkk laajug ki xare ki ki ki ki daanu ci xare ndax lay mbóotam loolu mooy ñoom ñuy dund lañu faatuwuñu naka sun ba mu ci alxuraan ne ku leneen jotte ñu faatu waaye ñu ngi dund fa barab sunu borom di leen wërsëgal di leen xéwalal moo tax sax duñ leen sang ñoom ki faatu ci xare deesu ko sang deesu ko sang noonu lañ ko denc rek yére mu faatu lañ ko dencale ni ko noonu te ak bi anbiyaaw yi duñ leen laaj eh, ca ca la gën a sax am nañu dañ leen dañ leen bu dee yónni bu dee mursal ma dañ ko laaj ndax jotal na lañ ko yónni woon bu dee nabi duñ ko laaj waaye bu dee nabi mursal nag gannaaw duñ ko yónni woon dañ ko laaj ndax jotal na Eh, ni ko noonu ki faatu ci mbas ki faatu ci mbas deesu ko laaj ci bàmmeel ki faatu ci biirum ndeyam noonu ki lab cim ndox faatoo ci deesu ko laaj ci bàmmeel ki nga xam ne itam dafa faatu ci misaal ab miira daanu ci kawam mu faatu deesu ko laaj ci bàmmeel ki faatu bis bu ajjuma wala guddig ajjuma ko laaj ci bàmmeel wala mel ne guddi biig mooy bu ne suba la ajjuma ak bëccëgu tey mooy bëccëgu ajjuma ku ci faatu dees ko laaj ci bàmmeel ak ki saxoo jàng sootu mulki bis bu sootu sajada guddi gu nekk nga deen jàng moo tax am na ñoo xam ne gannaaw gee dañu naafila ñaari ñaari saar yooyu rakab njëkk sootu sajada rakab ñaari sootu mulki ki ko saxoo dees ko laaj ci bàmmeel mooy itam bu dee nag euh, faatu ajuma Sëñ Tuubaa neen day tàbbi ci biir dañ cey tàbbalaale bëccëgu bi alxamis bëccëgu alxames dañ koy limaale ci ajuma ji ak donte suulee fa ko ba ca sam keroog nag loolu lépp dañ koy limaale ci ajuma ji nen cosaanu loolu mooy li yéen saa sama waxoon ne maa min muslimin aw muslimatin yamuutu laylatal jumaati aw yowmal jumaati illaa waqiya asaabal xabri wa fitnatal xabr amul benn jullit bu góor mbaa bu jigéen bu faatoo guddig ajuma wala bëccëgu ajuma lu may def na ko fegal mbugalum bàmmeel ak fitnay bàmmeel tajara dacaate nga walaq yàllaaha wa huwa raadin anhu wa jaa yawmal qiyaamati wa ma hu shuhudun yashhaduuna lahu loolu kon lu màgg màgg la da dajeeg yàlla fekk muy ku yàlla gërëm bis penc itam dana ànd ay seere yu ànd ak moom di ko seere bu dee ci sànnu sóotu mulki nag jàng sóotu mulki mooy ay ay xadis yu bare bare bare root na ci yu koy yu koy saxal ñëw na ci muxtasaru Sha'raani yi yàlla ko yàlla gërëm mu ne jàng sóotu mulki ki ko saxal dees ci bàmmeelam ngir ngir rootuk lool ci xadis yu bari yoo xam ne yëpp yu wér la ni kon ko jàng surtu ixlaas ci wér di faatoom da di jàng surtu ixlaas donte bi nga ko jàngee ak bi nga faatoo soree na sax waaye wér di googu mooy wéy ba faat la ci misaal da nga wér di rek jàng surtu ixlaas benn yoon dem baam juróom-ñaari wala juróom-ñetti yoon wala at sax doo a te kon wér di kon ne ba nga faatu ca nee na kookee desu ko desu ko laaj ci euh, bàmmeelam euh, ni ko noonu euh, kon kon ñooñu ak ki nga xam dañ koo dañ koo rey ci défendre ci mu doon défendre da da nga doon défendre sa arda bañ ma da nga doon dañ doon agressé ngay aar sa alal bañ ray la ca ñan neen kooki des ko laaj ci bàmmeelam kon yooyu ñenn lañ ci ñi nga xam des nañ laaj ci bàmmeel ki rey ngir alalam ngir sàmm alam wala ngir sàmm deretam wala ngir sàmm euh, ab deram bañ ray ko ca kooku des ko laaj ci bàmmeel bu dee wax gi bam bàmmeel day wax ak ka ca tëdd imaamu Chaaraani na ko ci li ci li Sëñ wax mu ne bàmmeel dafay wax ak jaam biñ ci tëral te wax na yam na aadama maa garraka bi ama alimta anni baytu zulma ama taalam anni baytul xaq yow doomu aadama ana lan moo la nax ci man xanaa xamoo ne man may may may néegub lëndëm xanaa xamoo ne man may néegub dëgg su fekkee ko texe la dana am ko ko tontul bàmmeel bi ne ko araayta in kaane man ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar xanaa gisoo ne kii da doon lu baax ak lu bon bàmmeel ba daal ne fa inni a'udu alayhi xadaraa wa ya'udu jasaduhu nuuran wa tasaduruhu ila rabbil alamin soo dee bàmmeel daal di wax ne kon nag dañ delloo bàmmeel ci naataange ci dundal ak ak leer nen roo xam di yëg nag dellu ci rabbul alamin abu abu ahmad alxaakim rahimahullah nettil na ko Sëñ Tuubaa nee na ba tey aarif dañu benn aarif dafa wax ne euh, Ubayd ibn Amr radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm day wax ne yàlla dafay jox lam dafay jox bàmmeel làmmiñ bu muy waxee wax ne yab na aadama kayfa nasaytani ama alimta anni baytul akala wa baytul duud wa baytul eh, wixda wa baytul wax wixsha doomu aadama naka nga mën a fàtte xaa xamu ne man may néegub lekkaakoon bi damay lekk may néegub sax ay sax moo fees ci sama biir ma bay may néegu wéet bi wéetaay wi nee na eh, Ahmad Ahmad dafa wax ne ba neen suuf day yéemu day yéemu ci ki fëgg ab lalam ngi fas yéene nelaw nen day yéemu ci moom naka yab na aadama ala tadkuru tuula ruqaadika fii jaw fii waa bay na bay naka firaashun ndax doo fàttali ko bis ba nga xam ne da ngay nelaw ci sama biir nelaw yu yàgg yàgg te ba lal du dox sama diggante ak yow bàmmeel dana naj kañ fa dugal dana naj doomu aadama yooyu ci saan la mooy xaris boo xam saa yi moo ko solo wax na yoon saa wax na ne sax dund maas ku tedd la ci saxaaba yi mu ne sa yoon saa ne sax du bi muy faatu xaaras xaaras yëngutu na ngir ak màggam ñu ubbi bunte asamaan yépp <coughs> nee na juróom ñaar fukki junni malaaka wàcc nañ keroog fekke faatu faatu sand ngir tedd nga am te teewul nag ànd ak loolu lépp soof nañ na ko ñu door ko door ko noonu tegg door ko ko njël <coughs> am na eh, rewaay boo xam ne soxna xaay sama ko nettali wax ne yoonu saaslam wax na ne bàmmeel am na naj gu muy naj goo xam ne bu ci kenn doon mucc saa doon maas dana ci mucc ndeke ma kenn du ci mucc yoo xam ne nee na juróom-ñaar fukki malaaka yi wàccoon keroog ci ci faatoom mosuñoo laal suuf lu may keroog keroog faatu saad seen bis boobu waaye bokk na ci sabab yi musle ci laaju bàmmeel li ñu tudde at talqiin ñaari xaaj la talxiin njëkk faatu ak talxiin gannaaw faatu mooy kii faatu ñu toog ci wetam naan laa ilaha illallah ngir bëgg mu wax ko doo ko ne wax ko nag ndax soo ko nee wax ko rek man nen duma ko wax ndax tar fa muy toll taraay ba man naa tax du dootu ànd xelam ba tax man duma ko wax te bu duma ko wax nag musiba la waaye dañ ko wax mu koy déggee ngir mu fàttali ko ko man ko wax ndax salaas newoon newoon na dafa waxoon ne laqinoo mawtaakum laa ilaha illallah ay ma shahadat uxra nañ kon sa laa ilaha ak ashhadu baati yi wa fi xadis ay man kaana axira kalaami min addunya laa ilaha illallah daxal jannat ay ma saabiqin saa sam ne nag képp koo xam ne lam mujj wax ci lam ñam laa ilaha illallah na tàbbi aljanna ànd ak ñi njëkk a naa liyu karam laaw ci waxoon na ne dégg naa ci yentu saa sam wax ne ay baata ngi ni yoo xam ne ku ko wax ci waxtu faatoom dana tabbeel janna muy laa ilaha illa allahu alxakimul ñetti yoon ak alhamdulilahi rabbil alamin ñetti yoon ak tabaraka tay bii dimul ko àla ko sin benn yoon tal dafay saafara itam xol bu dee nag se talxiin gannaaw faatu mooy bi nga xam bu fekkee nit dafa faatu sony dum sony dum nu abdoulaye al asadi moo ko nettali suñ dumaa na dama fekk aba umamata albahiliya bi muy bi muy faatu mu wax ma ne ma yow Aba Saïd su ma faatoo na ma defal na yéen saa suñu digle woon daa waxoon su fekkee kenn ci faatu na bañ sotti suuf si ci kawam ba noppi na kenn ci yéen taxaw fi tolloog bab bi ci ci ci bàmmeel bi ne yow diw doomi diw nday ji lay tudd nag yow diw doomi diw mu jigéen neen dana dégg waaye du tontu nga waxaat ko diw doomi diw boo ko defee boo ñett yoon nag daan la arshidna yarhamukallah loo bëgg a wax yàlla na yàlla yërëm mu ne waay boo bu ko waxee du ngeen ko dégg yéen nga ne ko fàttali ko la nga génnee adduna te mooy seere ne kenn du buur ko ma yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wasallam mooy ndawal yàlla ndax gërëmoon nga yàlla di sa borom lislaam di sa diine Muhammad di sa sa yonent di sa imaam ne ko bu mën kare nag ki ñëwee neen fekk ñu defal ko lii kenn ko nekk day day genge morom kenn ko naan morom ji demal kenn ko naan morom ji demal dañuy genge ñu ne ah, lu ñuy wuti te gannaaw ki xas nañ ko sa sa aw layam bu noppi xas ko sa aw layam am ku ne yaa Rasulullah bu fekkee xamuñ turu yaayam nag mu ne fal yansibu ilaa xawwaa kon da ko askan Xawwa ma nga xam ne mooy ndeyu doomu aadama yëpp muy sunu maam kon diw doomi Xawwa Euh, kon yooyu ci yenn la ci yu bari la waaye lenn la ci xeeti talxiin yi bokk na ci lii waral mbugalum bàmmeel yàlla nañ ci yàlla musal te musal leen ci mooy ràmbaaj bokk na li ñuy fitnaali nit ci bàmmeelam mooy jaxas ay nit bokk na ci li ñuy mbugal nit ci bàmmeelam mooy ñàkk a ñàkk a euh, defaru ci am saw maanaam bu sawee ba noppi daal daal di jóg rek te ma naam lay génn génn ba jaax muy toq ci yéreem daan daal toolu boppam ci ci am am saw des ko yàqoon des ko gaawee fexe ba lii génn génn ba set nga raxas ba set ba nga xam dara du toq ci nga door a jóg ñàkk def loolu nag bokk na lii mu lii war ni ko noon fen bokk na lii war a mbugalam nay dañ ci mbugal ni ci bàmmeelam ak rëy dana war a mbugalam ñaaw njot dana war a mbugalam xool jàmbur bu jigéen nit dana war a mbugal bàmmeel yépp ko ci yi finnaal ni ci bàmmeel ci la bokk waaye yi ci gën a yi ci gën a fis daal mooy ñàkk a ferluñ ci cim saw ak xool jàmbur bu jigéen mooy yi ci gën a fis yoo xam moom faawut nit ki dëgg mbugal ci bàmmeelam Sëñ Tuubaa ne ñëw na ci sarfo Abdul Baaqi yal na ko yàlla mu nee na yépp ku gis ab néew danga ko séen rek daal di kàbbar mooy allahu akbar ñetti yoon na xaata ma wax dan laa warsuloo wa sadaqa laa warsuloo allahumma sidna iman wa tasiman dañ ko bindal ci loolu fukki yiw di ko daal ci bis mi ko waxee ba ci kero ba kero sax di taxaw amul teqale moo xam ba nga koy wax da taxaw wala da ngaa toog wala lu mën a xew rek bokk na ci liy tax tam nit bu duggee ci bàmmeel la ñu dëgëral ko ba mu mën a tontu ñaari malaaka yi tey mbug tey woyefal itam tiiti bàmmeel ci moom li Seydina mooy ñaar rakka guddi gi ajuma gu ne mooy bu ne suba la ajuma ci guddi gi diggante mi saggee nga jàng ci rakka bu nekk sotti sotti silsal silsala fukki yoon ak juróom nga saxal ko bokk ne li woyofal tiiti bàmmeel ak ak i mbugalam daa tax dëgër tam ba malaaka yi ñëw itam nga nga am nga nga am dëgëru mën a taxaw mën a mën a dal tontu leen di fekk tam ay fitnay bàmmeel bokk ne li waral leeruk bàmmeel ci la ñuy jeexale lii leeral bàmmeel yàlla na ci yàlla na ko yàlla wërsëgale julli guddi julli guddi bàyyi ba nit ñi tëdd nelaw nga nga jóg di julli loolu dana leeral bàmmeel bokk ni war itam ak dëgër ci bàmmeel mooy jàng alxuraan di ko saxal bi seen nga jàng alxuraan ak lum néew néew waxaat la mu waxoon ku jàng xulufa law adin ci wér di faatoom dee su ko fitnaal ci bàmmeelam Euh, tey dana dana wóolu najug bàmmeel ko ñu doon wax malaaka itam buy jéggi siraat ñoo koy bokk ci seeni laaf naaw ma bu jéggi moom siraat kon lu am solo la doomu aadama su faatu yoon saas newoon ne bu faatoo mboolem jëf ju ko daa may tiyaaba yépp day dagg ba mu des ñett benn mooy mu am doom ju baax ju fa des di ko ñaanal aw yiw da cay jot walla mbaay fi sadaxatuñ jaariya lu am njariñ lu fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo teen boo gas nit ñi da ci naan wala forage boo bën nit ñi da ci naan wala garab goo jëmbat nit ñi da ci toog ci mu meññ di ko ñu di ko lekk mbaa yoon woo defar nit ñi da ci jaar mbaa yu mel noonu loo xam daal nit ñaa ngi ko jariñoo di fay ñaa ko jariñoo te abay loolu di fekk fa nga nekk ci sa bàmmeel ak nag ba ko ñetteel mooy xam-xam bu am njariñ boo fi bàyyi nit ko jàngal muy jariñoo xam-xam ba wala téere boobu mi ñu jàng téere ba loolu lépp day doon euh, loo xam ne euh, daf lay fekk fa nga nekk di la di la fa xeetli yiwu lool di la fekk ci ci sa bàmmeel kon nag loolu lu am solo lu mat a euh, bàyyi xel la may jeexale mooy xadis bi Umu Darda nettali jëli ñoon saa sama wax ne amul benn kenn ku faat ko ñuy jàng surtout yaasin lu ma yàlla dana yàlla dana ko dana ko defal ak jàppandal saa su ne woon iqra oo yaasin ala mawtaakum na yaasin seeni seeni way faatu bokk na ci ñaan yi ñaanal aji faatu allahumma aamilhu bima bima anta ahlu wala tuamilhu bima bima huwa ahlu wajisihi anil ihsani ihsana wa anil isaati afan wa xufrana allahumma andur ilayhi nadrata ridan fa inna man tanduru ilayhi nasaratidan la tu'adibuhu abadan yow sunu borom yàlla na nga jëflanteeg moom ci li nga yaayoo yow waaye waaye bul jëflanteeg moom ci lum yow moom yàlla na nga ko fay lam doon jëf ci rafet yàlla na nga ko fay lu rafet lam doon jëf ci lu ñaaw yàlla na ko ko fay njëggal njëg njëg njëggal ak ak sag sag sag sag mbaal sunu borom yàlla na nga ko xool bëtub ngërëm ndax koo xool bëtub ngërëm kat doo ko mbugal mukk kon bokk na ñaan yi ñaan kon ñu ñaan rek ñi faatu ñëpp ñi jiitu ñëpp yàlla na borom e, yërëm leen te jéggal leen defal leen tàbbaleen aljanna e, jëflanteeg ñoom ci yërmandeem te bañ a jëflanteeg ñoom ci seen seen i jëf ci njëf desit yàlla defal nu ak njéggal ba ñu leen fekkee e, doon doon fa ay jullit yoo xam ne ñu sunu boon di xéewal foofu lañu doon ba sax dàkk barke Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxtaane ngir noo dem te dun dëppaat amaana dig bi